بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين mbokk yi ñu ngi sant sunu borom di julli di salmal ci ab yonente muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nu ngi ñaan sunu borom mu dëkkee dotti waamem xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ beneen yoon ci ron keppaaru xam-xam di waxtaane saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ñu fàttalikoo suñu bind bi weesu ñu ngi taxawoon ci dundu saxaabi yi bu màgg muy Xaalid ibn al-Walid tey bi xusni tawfiqil baari ñu ngi jël keneen ci saxaaba yi duur rek dafa nekk saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye ak dundam lépp da di am njàng ñu ànd xam ni mbokk yi saxaaba yi dañoo am ay jagoo yoo xam ni borom bi daf leen koo baaxe jagoo yooyu mooy bu fekkee nit ci ngëm yàllaam ak toppandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko yitteel lool boo sàggantun rek mu amuk farfar lool ci saxaaba yi te du ko yëg la ko koy yóbbee mooy lépp luy xeeti mbaax saxaaba ya dañ koo dajale mbokk yi jàpp naa ni day bu nit ki ñàkkee ku mu teg tey ci kanamam pour di ko roy ci lépp mënu koo ñàkk ci bu fekkee mi ngi jàng dundu saxaaba ya ak a gaaw ci déplacé ngëm jëlee ko fu suufee yóbbu ko fu kawe ak a gaaw ci soppi doomu aadama nga xam ni diggante bu gàtt rek nit ki mën na mën na caa dégg ay yëf yëfaan ci saxaaba ya loola soppi ak dundam soppi ku gaaw ndax xam-xam yi ne sunu borom daf na wax ni fa in amanu misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq borom bi daf ñuy wax ni laqad kaana fi xasasihim ibratun li ulil albab ma kaana xadisan yuftara ñooñu nga xamante ni ñoom lañu suñu borom reyloo ñoom lañu yonent bi alayhi salaatu wasalaam royloo laa shakka ne dañoo peeg dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi kulli jawaanib alxayaat tey ñu ngi kenn ca koo xam ni ak dundam di mbokk yi am njàng la ba fees ba jeex rawatina nag kàddu yi nga xamante ni da doon génnee ca moom muy abu darda nga xam ni borom xam-xam yi ahli siyar dañ koy tuddee xakimu hadihi l umma mooy ki nga xam ne yàlla da koo baaxe mu nekk ku xereñ lool ba fës ca ci xeetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom la yonente bi doon wax ni inna rabbi waadani bi abi dardaa an yuslim yonente bi dafa toog ak saxaaba yi benn bis ba mu yàgg mu ne yëg leen ni sama borom dikk na ma ni abu darda dina dikk dana dikk dana tuub si loola ba ko yonente bi wax abu darda tuubagut tey kéemaan ga nag mooy abu darda ak saxaabi bu mag bii di abdullahi ibni rawaxa bokkoon ca ña faatu woon ca mu'ta ñoom ñaar seenu xaritoo ñépp ko xamoon islam moo leen teqale abdullahi ibni rawaxa moo njëkk a tuub xanaa ki tuub moo waroon a bàyyi ki tuubut waaye moom abu darda ku amoon full la même bi muy nekk yéefar bi mu yëgee ne abdullahi ibni rawaxa tuub na rek mu ne ko séqatuma yow dara ba ma ma bala te yaakaar naa loolu ci tuuba ko waroon a wax ndax loolu la ko lislaam digal waaye moom fullaam ak ngëm-ngëmam dafay tekki rek la yentu na xiyaarukum fil jahiliya xiyaarukum fil islam ida faquhu kiimaanu sunu borom gi day feeñ ci saxaaba yi koo ci jàng dundam qabla al islaami wa baada da ngay fekk ni këla ëppoon fulla gën laa gëm gën laa dëggu bu ñëwee ci sunna rek da ngay raw yonente bi alayhi salaam moo ne xiyaarukum fil jahiliya këla gënoon ba ngeen nekk ci ceddo ga xiyaarukum fil islam moo lay gën bi ngeen ñëwee ci lislaam waaye bi sart ida faqahu bu ngeen xamee diine maanaam boo jàngee diine mu jàng diine rek mu raw boo jàngul dinaam taxut di wax kon kon yonente bi alayhi salatu wasalaam métti mu rëy nii tàbbal na ko ci xolu saxaaba yi moo tax abdullah ibni rawaxa moom nee na naka jekk rek maa ngi jàpp sama marsa jàmm waaye xamoon naa ne waa ji day ñëw ndax ñoom nag ñu dëggaloon lañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay waxam borom téere mu ni innahu al imamu al qudwa qadi dimashq wa sahibu rasulillah abu darda hakimu hadihi al umma wa sayyidu al qurra'i fi dimashq وهو معدود في من جمع القرآن في حياة رسول الله وتصدر للإفتاء بدمشق في خلافة عثمان وقبل ذلك ñeenti yëpp a ngi nii yoo xam daf koo melale Abu Darda bi ci njëkk mooy moom de mooy imam ji di royukaay wi di attekat ba ca Dimashq te it nag nekkoon saxaaba bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam abu darda nga xam ne dañ koo xamee woon ci génne ay baat yoo xam ne xikma da cee nekk te xam ngeen ni borom bi subhanahu wa taala mun yutti l xikmata man yasha xikma suñu borom moo koy jox ku ko soob xikma nag mbokk yi bokkul ak xam-xam déedéet xam-xam xam-xam la xikma xikma la nit ki dana am xam-xam donte nag xam-xam ak xikma dañuy faral di ànd waaye xikma ja mën naa des nit ki mën naa am xikma te du am xam-xam léeg-léeg suñu borom booleel nit ki xikma xam-xam moo tax ma yutal xikmata faqad utiya xayran katira xikma mooy koo xam ni lu ne daf koy teg ca palaasam ba ci ay wax te mu ngi gën a feeñee ci wax ndax xam ngeen ni yéen a ngi fàttaliku ca suratu luqman wa laqad aatayna luqman al xikmata an iskur lillah bu ngeen fàttaliku bind boobu andi woon naa ca ay mbir yu bari yoo xam dañ koy askanee luqmaan muy wane ni moom kat ku xereñ la woon ci ay xeeti wax yoo xam ni daf ko doon wax li ci alquran nettali rek wa id qaala luqmaan libnihi wa yaiduhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim loola rek doy na ci waaye abu darda mbokk yi moo nekkoon imam ja ca dimash abu darda bokk na ci ñi dajale alquran ba mu mat ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam foofu nag ñu war dañu jàpp ne boo ne dajale quran rek ñu jàpp ne dajale gi ñu njëkk a def Abubakar a ko def gata da da gu siiw gi la waaye saxaaba ya am na ci ñeent arbaun jamaau alquran fi xayaati nabii sallallahu alayhi wa sallam am na ñoo xam ne ñoom dañoo dajale seen dajale bopp ñoom te kenn dajaleegul booba Abu Darda bi ca la bokk waaye nag ci xilaaf ak Usmaan ak la ko jiitu moo nekkoon mufti ba nga xam ne borom xam-xam bi gën a mag ca Dimash nga xam ne moom lañ doon laaj seen wàllu diine Abu Darda kan la jaar ba dugg ci lislaam waxoon naa leen sànq ni Abu Darda ak Abdullah ibni Rawaha sunu borom daf leen a booyaloon ci kóllëre gu yàgg ñu nekk ay xarit waaye keroog bi Abdullah ibni Rawaha gisee lislaam tuub dugg ci Abu Darda ni ko bàyyi na tout tranquillement bul ma jege ci bul suñu relation nañ ko coupé ah Abdoulaye ibn Rawaha nee na ñu daal di koy coupé benn bis ci bis yi Abu Darda commerçant la woon doon commerce muy jaay ak a jënd bi mu génnee dem jaayi ba ñëw dafa tijji buntu këram rek fekk fa lu ko bett lool. li ko bett mooy lan xërëm yi mu sampoon di ko jaamu nga xam ne moo nekkoon yàlla nga xam ngeen waxoon naa leen wanag wu nekk am na yàlla di fa nekk. soo demoon ci seen kër yi wanag bu nekk rek am na yàlla duñ fatal kii laata kii uzza kii manaata kii isaafa kii naila kenn ku ci nekk sa yàlla na nga koy tuddee kii de defu doj kii defu xeer kii def bant kii def ëkk kii def kuur kii def gën ila axirihi bi mu yegsee ci ji buntu këram rek mu dal di gis ni ndekete yàlla jam doon jaamu tojate nañ ko ba mu mokk wasaare ko ci biir kër kër gi génn dem ci digg ëtt bi fekk Abdullahi ibni Rawaha ak Muhammad ibni Maslama ñoo def loolu muy xaritam ak Muhammad ibni Maslama Muhammad ibni Maslama ci kéemaanu saxaaba yi ci njàmbaarte la bokkoon kon moom Abdullahi ibni Rawaha ñoo ànd ginnaawu Abu Darda ci biir këram toj këram ya daal di génn dem bi Abu Darda yegsee ak li muy xeeñ ak li muy yeewu yeewu mu am lu ko metti lool waaye bi mu duggee ci biir këram mi ngi dajale xërëm yi te naa ko way xaq hal lam tanaat alla dafaata an nafsik yow kenn gën a gënu laa alko yow dama xamul bi la gars yi dikkee dina toj loolu lu xulli ma défendre sa bopp yow li muy wax loolu soxna si daal di génn daal ne ko abu darda law kaana yadfau aw yadfau an ahadin la dafaa an nafsi abu darda yow nag sa yeewute gi mi ngi lay bëgg a réer xam nga ni xiram wii su fekkoon mën na la andil njariñ mbaa mu andil la ay lor xam nga ni kon moom boppam la koy jëkk a fegal ba noppi gis nga léeg-léeg léeg-léeg kenn ci nit ñi kàddu ga yàlla lay dogal nga duggee ci lislaam wala nga xamee ci sunna yàlla rek moo ko xam gis nga kàddu gi moo dugg ci nopp abu darda fëkk nopp ba dugg ci biir xol bi bënn xol ba tàbbal ci leeru ngëm bari waane ci saxaaba yi ñoo xam ne seen ak gindeeku ci seen soxla la ko yàlla jaarale loolu yàgg na am de jigéen ñi tey lañ nekk ay cuune soxna yi biir kër yi tey lañ nekk ay cuune nga xam ne góor gi moo leen di yóbbaale ci wàllu diine waaye bu njëkkoon safiya binti abdul muttalib asma soxna zubayr doomu abubakar ummu sulaym binti milhaan ak ndaw si di ummu darda ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne boo jàngee seen siira wallahi influence bu rëy yokkute gu rëy def nañ ko ci seen borom kër ci wàllu diine léegi nag moom loolu daa mel dafa xeewi maanaam jigéen ñi moom dañuy féete ginnaaw rek léegi ñu leen buub di leen watal di leen yóbbaale bi loolu amee mu daal di wax soxna si ni ko tànqal ma ndox yóbbul ma ca wana wa damay sangu nee na mu tànqal ko ndox mu dem sangu sol benn mantoom bu rafet daal di ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam abdullah ibni rawaxa nee na dama koo séen rek sama piir turit ma ni tay laay nee xamante woon nañ ñoom ñaar de xamante woon nañ gis nga ku ñàkkooni caaxaan la nag abu darda ku ñàkkooni caaxaan la te wax naa léeg-léeg melokaan yi daf lay topp ci seddo gi ba fële abu darda bi sama piir turit ma ni tay laay dee ni yonente bi kii di ñëw di sama kaw la jëm yonente bi ni ko dalal gis nga kii di ñëw nii day tuub si waaye jëm siwul ci sa kaw te fekk booba ak saygut loolu nag yàlla moo ko xamal ndax moo ne woon inna rabbi waadani bi islaami abi darda yàlla sama borom dig na ma ni abu darda dina tuub si abdoulaye ibne awaa xam ne na fi ma toog maa ngi tell tell rek xam naa ni fit waa ngi tëgg moom fi mu toog fit waa ngi naan tell tell tell ba abu darda daal di yegg bi mu yeggsee daal di sukk ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daal di tuub dugg ci lislaam kon kàddu gi foofu la ko yonent bi waxee woon abdullah bin rafaal ko yonent wax ni ko innama jaa al yuslim inna rabbi waadani bi abi dardaa al yuslim kii di ñëw di dalul ci sa kaw kii day tuub si sama borom dig na ma ni abu darda day ñëw pour tuub lu weesu loolu nag ci la commencé waxuma la di dund lislaam waaye di dund alquran te mbokk yi ñun lii la ñu manqué tey nun ndongo yi lii la ñu manqué tey am ay xudwaat ay nit yoo xam ne da nga leen di waxuma la benn nit de waxuma benn waaye ay nit yu nekk ci sa kanam yoo xam ni jëmmi dund ak ñoom jëmmi dëkk ak ñoom jëmmi di leen gis ak di waxtaan ak ñoom sabab lay doon ci ngay yokk ci diine lu ko waral ndax danoo jël diine di ko dund ba nga di ko gis loolu nag mooy li jafe tey dinaa ko yokk mbokk yi ma ni leen tey nun nun ñii yàlla danoo nattoo am nañ ay jàngalekat yu bare ki wax kat waaye ay yarkat lan manqué te mu ne jàngalekat moo daan nekk yarkat bi ndaxam day ngiram Shafii yi ngiram Ahmad ibn Hanbal ngiram Abu Hanifata da ngeen a yaakaar ni kenn ku ci nekk dangaa toog na ba mu yàgg rek mu créé benn ngir créé ay affaire tuddee comme ngir mbir mi demewut noonu de du woon loolu de te lii ma wax ñii ñu bari loolu lañ foog même ñenn ci ñi askane xam-xam sax loolu lañ foog ndax même buñ ko waxul bil xal bil xarfil waaxid boo déggee seen wax da ngay xam ni loolu lañ fas waaye mbir mi demee wut noonu de abu darda imaamu malik imaamu daar al hijra imaamu shafii ahmad ibnu hanbal ak abu xanifa kenn ku ci nekk da nga toogoon di jàngale bi ngay jàngale li ngay jàngale yaa ngi koy jëfe nga am ay taaliba yu la jege yoo xam ni ci sa biir dund ak sa bitib dund ñoom say masala yi ñu jàngee ci yow dañ koy wasaare donte xam nañ ni am na tegtal ci sunna waaye ñu naa sëriñ bi kat nee na nangam te fekk loolu ab tegtal la am yooyu biñ ko dajalee dafay daal di nekk ay masaayil yoo xam ne yépp mi ngi ngojjeekoo ci imam ju mag ji ñu daal di koy tuddee ngirum saafii loolu rek la waaye nekkul day kër ya benn mbooloo fee nan may borom ngir mi kaay leen yéene taaliba yi topp sama gannaaw mu jiitu déedéet mbir mi demee wut woon noonu abu darda bi mu tuubee rek kaana yutarjimu ayat alquran ila waaqiin amaliyin mandur alquran ji mu doon jàng ahlu siyar ñi daf ko doon dund nga xam ne boo ko gisee rek dafa am leneen lu mu lay doon yi yemu ci loolu waaye bokkoon na ci ñi nga xamante ni jàmbaari xare yi lañ woon am na ñu ni sax bisab badar teew na am na ñu ni déedéet teewul waaye oxod moom teew na bal sax nag ca oxod ca oxod am na mbooloom yéefar yoo xam ne bi ñu nekkee ci kaw montagne bi yonent bi dañu abu darda dama nga dàqal ma gaa yële moom rek moo dem radiallahu anhu wa arda xam nga loolu boo ko déggee firnde bu réengoo pour wan la ne la kii kon jàmbaar la woon mbooloo mu nekk ci kaw montagne bi ay yéefar te xam ngeen ni yéefar bu taxaw ca Uhud xam ngeen dana yor ngànnaay yow nga di kenn nga mën a ñëw di leen dàq loolu moom la salamata ibn al akwa defoon ñu bokk yam waxoon naa leen fi ni salamata ibn al akwa xëy na suba ba ngoon di dàq lu ëpp ñetti téeméeri yéefar moom kese waaye nag ku ku ku ku ku yeewu woon la maanaam day def xeen xeeti fexe yoo xam ne su ko defee yéefar yi dañuy yaakaar ne kii du moom kese moo ànd daa ànd ak mbooloo fekk moom kese la mu yendoo leen a tëbal ba ngoon jot yemut ca loola ba ngoon jotee gaa yi defee dafa sonn benn waaye ni ko kaay ñu kursu mu ni ko waral sa fas man ma daw ñu kursu jëm Madina loolu nag xam nga daanaka bu dee xel rek moom xëy rumaaxul moom ndax fas wuy daw ak nit kuy daw ñoom ñaar ñuy njëkkante loolu kay maam suñu borom la fas wi départ Muhammad ibn Maslama départ te fas wi jiituwu ko Madina te moo yéen doon def li mu doon def ci xare bi ñoom nag bul fàttali borom bi subhanahu wa taala la ibn al afir di wax ci usudul gaaba ay gayndey àll lañ woon yoo xam ne suñu borom daf leen defaloon ci ay may loo xam ne li ëpp ci xawaariqul aada moo tax ibni kathir day faral di wax ni yi nga xam ni feeñ na ci saxaaba yi ci ay kéemaan lépp dañ koy boole limal ko yonente bi ci ay kéemaanam sallallahu alayhi wa sallam abu darda kaana zahidan fi hadi alxaya ku dëddu woon àddina la abu darda abu dar boo ne ku dëddu àddina la ndax yeneen saxaaba yi dañoo dëddu woon àddina déet ahan kay waaye kenn ku ci nekk da nga am foo gën a fasee nag abu darda radiallahu anhu bokk na ci saxaaba yi gënoon a dëddu àddina bokk na ci la koy firndeel xam nga way saxaaba yi dañoo tolloon ci jamono joo xam ne wax na leen jamono yi poète la woon nga xam ni ci la alxuraan wàccee daanaka néew na koy waxal lu dul am na luñ ko xamal ci ay way te xasan gën caa siiw ak kaab ibnu zuhayr abdullah ibn rawaha ila axirihi benn bis benn waay dane ko waaw abu darda yow bokk na ci li ma jaaxal mooy gaa yi moom koo ci waxtaanal lu gàtt gàtt gàtt am na ay bayit yu mooy yow moom lu tax duñ la dégg nga wax dara mu ne ahan kay am naa lu ma wax kay xanaa da nga kaa déggagul mu ne ko lan nga wax mu ne ko li ma wax mooy yuridu almaru an yuta munaahu wa yaba allahu illa ma araada yaqulu almaru faidati wa maali wa taqwa allahi afdalu ma stafaada mu ne man kay am na lu ma wax li ma wax mooy nit ki foo ko fekk rek day bëgg suñu borom lu mu bébét rek mu defal ko ko waaye yàlla moom nee na déedéet du ma ko defee noonu de li ma bëgg man loolu rek laa lay defal mu ne nit ki foo ko fekk mi ngi naan sama lii sama lee ak sama alal bi mu ne xanaa xamoo ni mbooleem li ngay dajale di ko lim naan sama lii ragal yàllaa ca gën jàpp naa ne bu doon ñuy way ñëpp loolu la ñuy wax moom defe naa ne kon war nañu koo bari rek ñu koy wax Abu Darda nekkuloon koo xam ni ku dudd àddina rek ci ay wax waaye kaana qalban wa qaaliba dafa dëdd woon àddina ci xolam ak ci biteem bal nag dafa demoon ba jaamu yàlla gi dafa dominé wutum àddina ba dafa mujj bàyyi commerce ndax jaamu yàlla abu darda nee na kuntu taajiran qabla almabaat فلما جاء الإسلام جمعت بين التجارة والعبادة فلم يجتمعا فتركت التجارة ولزمت العبادة mu ni man kat dama dajale woon diggante commerce ak jaamu yàlla muy dama nekkoon commerçant bi yonent bi wootee alayhi salaatu wasalaam ma dajale diggante commerce ak jaamu yàlla ma gis ni ñoom ñaar mënuñoo ànd ma teg ni xaaral kon ma tànn benn ci laa gis ni kon faaw ma tànn jaamu yàlla bàyyi commerce te borom alal la woon abu darda li muy dëdd dëddu àddina ak li muy ñàkk ñàkk ci mujjantal gi ku bari woon alal la waaye dafa mujj bàyyi alal ji yépp ngir jaamu yàlla donte nag foofu al imaamu zahabi rahimahullah ci siiru alaami nubala dafa wax ju am solo mu ni al afdalu jamu al amrayni maa al jihaad nee na li gën nag mooy ku mën a boole li ngay liggéey nga di ko liggéey ak di jaamu yàlla su dee mën na noo ànd nee na loolu moom mooy li gën nee na wa huwa tariqatu jamaatin min alsalafi wassuufiya nee na loolu moo nekkoon yoonu salafu saalex moo nekkoon yoonu suufiya tamit suufiya nag jàppal ni saa buñ ko waxee suufiya gu njëkk ga bokkut ak gu tay ji ndax suufiya gu njëkk ga kat caay caay di nga gis tay daawuñ ko def déedéet gën laa bëgg jabar gën laa bëgg kër gën laa rëy garaamub jongo ma ju rafet ñu takk loo dajale ci alal jox leen déedéet suuf ya mel woon noonu bal kay sukk yaa ngi koy njëkk ya boo leen masaana jox sax duñ jël faf saxtaana maa bay na suuf yay ni muy nag am na nit ñoo xam ni yàlla may na leen mën nañoo boole commerce alal ji dox lool te du tee danañ nekk ay jaamukat yàlla tigi te du leen wàññi dara mu ni misaal ma mooy Aboubacar ak Abdourahman ibn Awf ak Ibnul Mubarak nga xam xam ngeen Ibnul Mubarak borom xam-xam bu mag la woon ah yoroon alal yor kër yori ndongo di leen jàngal di leen dundal tey commerce waaye nee na am na ci ay nit yoo xam ne ñaar yi buñ ko boolee rek. jaamu yàlla gi sooxe ak wax dëgg nee na nag am na ci ñoo xam ni bu ñu leen boolee commerce bi sooxe comme ku mel ni Abu Darda kon kenn ku ci nekk la gën a méngoog besam rek lay def ànd ak nag nit ki su fekkee mën na leen a boole loolu moo gën muy ñaan moo gën muy soxlaal ñi nga xamante ni ñoom ñooy nit ñi ànd ak Abu Darda yeggoon na ci koo xam ni ci jaamu yàlla demoon na ba jaamu yàlla gi dafa dominer sax àq bi mu war a jox waa këram xam ngeen ne Abu Darda waxoon naa ne xarit la woon ak Abdullah ibn Rawah waaye bi lislaam yegsee yonent bi takkale ko ak Salmaan ñu nekk ay xarit xaritoo googa yegg ci ba léeg-léeg kenn day ñëw dem kër morom ma fanaan fa benn bis Salmaan al Farisi radiyallahu anhu dal di ñëw ziar si kër Salmaan bi mu yegsee li mu njëkk a seetlu mooy gis na soxna Salmaan mi ngi sol benn robb robb baa ngi tilim foog ko fekk mi ngi ca waañ ma génn dem ca saxaar sa dugg raxas ndab ya maanaam daal mel ni jigéen joo xamante ni daanaka sa yoo fas Salmaan nee na ma seetlu loolu ah añ jot soxna si yekk añ ma ne bismillah ay waleen ñu añ Abu Dardaa ni añal damaa woo Salmaan ni ko déedéet boo dëggul sa koor gi ñu bokk añ man duma añ suur naa may xam nga gan moom boo ko mu ne la suur naa ngir ni yaa xamal kan daanaka yow boo amee xel sax doo am gan taaj ko naa ko lekkal dangaa woo moo tax sunna permettre nit ki bu gane jee mbaa ñu gane si ko bu dee koor nga kooru sunu la mu dog kooram te it day am ci yaabay koor nag insha allah salman ni ko du ma lekk lu dul dañoo bokk lekk mu jëm kaw jëm suuf mu ni ko li ma la wax xam nga ma yow mu daal di dog koor gi ñu sukk ñoom ñaar lekk ah nee na ba ngoon jot tëdd jot mu laalal ma ni ma tëddal fii ma ne ko yow nag mu ni man ruq bee laa jëm damay naatu la ma ne ko déedéet xanaa mbette ñu bokk tëdd mbaa nga dem te soxna fee nga dem tëddi fa waaye man du ma tëdd du ma tëdd man kese bi la bàyyi mu jëm kaw jëm suuf mu ni ko loolu ngay def ñoom ñaar ñu daal di bokk tëdd ñu tëdd ñoo kon jaay tuuti rek sa waay rocceeku jub bëgg ne mu ni ko foo jëm mu ni ko fa ma la waxoon mu ni ko tëddaatal heure bi jotagul ba nu demee ba mu yëg ni fajar gaa ngi jege si nag mu doon ni ko pëkk pëkk jugal nga dem nga def la ngay def li ñu yewwoo suba nag ñi ngi ñi ngi mer moom Abu Darda lu tax mu mer parce que sama xarit daf maa gêné wax wallaay da koo gêné ndax jaamukatu yàlla boo ko doxee doxee digganteem ak jaamu yàlla rek nga gêné bi mu yegsee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo njëkk a boole moom moo njëkk a boole parce que jàpp ne mooy am dëgg mu ne yonente bi gis nga sama gan gii nag moom mi ngi bëgg a ëppal dafa ñëw sama kër démb bu dog na sama koor gi yàq na sama guddi gi def na nangam mu ne ko lim la wax mooy dëgg lan la ko wax dane ko hey sa bakkan bi daa am ci yow àq sa jabar am ci yow àq sa doom am ci yow àq sa liggéey bi am ci yow àq maanaam te mooy aati kulla di xaqin xaq kenn ku ci nekk da nga ko war a jox àqam loolu bi ko Salman waxee ci guddi gi mu xëy di boole si daal di wax loolu yonent bi ni ko li la Salman wax loolaay dëgg mu ni ko Salman lim la wax moom loolu moom mooy dëgg xadis boobu foofu la loolu mooy nekk cosaanam xadis boobu loolu moo nekk cosaanam kon Abu Darda li muy jàmbaare jàmbaare ci jaamu yàlla tey Salman jubbanti na ko tuuti kon nag foofu di nga ci déggee ne doomu aadama ji topp ay jaamu yàllaam rek rek rek rek ba ah àqam yi mu ameel ña nga xamante ni ñoom la ko ameel jox ko ci kenn joxewul benn àq ah su boobaa loola islam da ko cay condamné ndax yonent bi alayhi salaam ànd na ak Salman ci njàngale boobu Muhammad ibni Kaab nee na Abu Darda benn bis dafa am ay gan nee na bi mu amee ay gan tombeeg jamonoy sedd guddi jot mu yónnee leen reer ñu reer ba regg ñu ngi seen ñu sonne yónnee leen ba ay mbàjj ñu ngi seen ñu yónnee leen ay mbàjj reer moom reer la waaye mbàjj amul kër kër Abu Darda malaan laa wax malaan waxuma la mbàjj de malaan mun sàngoo amul kër Abu Darda ah gars yi daal di reer ba regg daal ni ah waaw xanaa ñu xaar mbàjj yi bokk wala malaan yi nee na ñu toog bi ñu toogee diir gisuñu dara ñu yebal benn waaye ni ko demal nga xool Abu Darda ndax dafa fàttee indi mbàjj yi wala déet waa ji nee na bi ma ñëwee ma yërlu kër Abu Darda ma seen Abu Darda toog soxna si toog ma xool xool xool gisuma luy niroog mbàjj gisuma luy niroog malaan ma ni waaw ah naa ko taayee wax naa tourné rek dem nee na bi loolu amee gars yi ni ko déedéet demal rek nga wax ko ni ko ñun ay mbàjj lañ bëgg ñu ngi bëgg a dee ko sedd mu daal di ñëw daal ni ko ah ñun kat aw nit lañ woo xam ne yar nañ ba rek waaye li ci des moom mooy mbàjj yi abu darda daal ni ko inna lana daaran nantaqilu ilayha qaddamna furusana wa luxufana ilayha law alfayta indana minhu shay'an la arsalna ilayka bihi وإن بين أيدينا عقبة كؤودا المخف فيها خير من المثقل أفهمت ما أقول؟ قال نعم Abu Darda ni ko yee ñun fii dañ fee luye fii nga ma fekk maag sama soxna mu ne ko du suñ kër dañ fee luye ci këram la de waaye dégg fa mu jëm mu ne ko fii nga nu fekk dañ fee luye sunu këru dëggantaan nga lim ak lim am ci ay bagages lépp fa lañ ko yóbbante soo fi fekkoon lenn lu mën a sàngoo danaa la ko jox waaye maag sama soxna ñu ngi nii gisoo fi sax lu nu sàngoo te it nag maa ngi lay xamal ni ay montagne musibaa ngi suñu kanam yoo xam ne danañ ko joggi su boobaa nag ku yéeg ci montagne oyof toll ndax yóbbante nga la nga doon yóbbu moo gën ci yow nga bàyyi bay dem di ko doog a yóbbaale dégg nga li ma waxa mu ne ko ay fayim tama aqul dégg nga li ma waxa waa ji ne ko waawaaw mu ne ko demal nga jotale ko gaaya allahu akbar kon loolu da lay wan ñoom seen dëddu gi ñu dëddu woon ak ndax dañ koo ñàkkoon la sama mbokk ma doon wax mu ni dëddu àddina ñaari façon la am na koo xam ni moom daa dëddu àddina waaye am na koo xam dëddu àddina de àddinaa ko dëddu dañoo nuróole te bokkuñu dëddu àddina mooy àddina daw wut si la allahu akbar la bisr ibn alxaaris wala ibni maayin kenn ci ñoom ñaar moo ko doon wax ku naa may wax nit ñi naa ma yow yow yaag Ahmad ibn Hanbal ñu may nuru leen Ahmad ibn Hanbal mu ni man damaa dof bay jéem a toppandoo Ahmad ibn Hanbal mi nga xam ni àddina daa wodd wut si ko mu daw wan ko gannaaw di dawi xilt naa ko bëgguma la mu ni xam ngeen ni kooku mënumaa mel ni moom jéemuma ko sax gis nga de àddina da lay da nga koy jékku ba noppi nga wan ko gannaaw waaye am na koo xamante ni àddinaa ko wan ginnaaw moo taxit moom mu koy jéem a war wan lu ginnaaw xam nga ki ñu ne mayu ma la moom mënul lu daal dem toog mayu ma la moom bu la ko def xëjee wax ma mayu ma mayu la jeex na gis nga kon àddina léeg-léeg mooy dudd nit ki waaye du nit kee koy dudd waaye Abu Darda mbokk yi yàlla daf ko baaxee woon mu nekk koo xam ni kéemtaanu suñu borom la woon ci kàddu yi nga xamante ni moo doon génn ci génn ñam te kàddu yooyu ñun mën nañ cee def am njàng mu rëy al imam ibn al jawzi te sifatu safo andi na ci ay mbir yu am solo wa kadalika imaamu zahabi ci seeru alamin nubala bokk na ci yooya ala sabil misaal Abdullahi Awn ibn Abdillah nee na benn bis damaa laaj Ummu Darda bi soxna Abu Darda ni ko waaw lan nga xamal Abu Darda su mu ëppoon lu mu doon toog di ko def mu ne ko at tafakkur wal i'tibar léeg-léeg da daan jékki-jékki rek ñu teg toog benn place ma ngay xalaat ci kéemtaanu suñu borom yi ma ngay waaru di fàttaliku ci ci alquran mi ngi waaru di fàttaliku ci xalaat ci yéefar yi fi jaaroon ñu gëm yàlla ñu fi jaaroon lépp loo xam ni boo toogee di ko xalaat day yokk sa ngëm te xam ngeen ni mbokk yi ak a gaaw ci yokk ngëm la jékki-jékki rek toog benn place aad samud firawn haman qaarun buxtu nasar ngay lim di dem rek suleyman daawud ah ah mboolem mbir yi nga xam ne dafay sànq doomu aadama nit ki di ko xalaat mboolem mbir yi nga xamante ni dafay tax nit ki delluwaat ci suñu borom allahu akbar loolu moo tax mu ne ko a tafakkur wal itibar mooy xalaat ak waaru umu darda abu darda mu ne tafakkuru saatin xayrun min qiyaami laylatin mu ne gis nga toog benn une heure de temps di fàttaliku ak a waaru di xalaat sa digganteeg sa boroom di ca góorgóorlu nee na loolu moo gën taxaw gët gi yëpp ci ko naati la allahu akbar ndax xoolal kon toog gi xalaat ci kéemaani sun borom yi إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآية abi darda moom dafa nekkoon koo xam ne lim doon zikr par bis suñ ko doon wutal morom kan la ñuy jël ci saxaaba yi ah abu hurayra abu hurayra yéen a ngi fàttaliku nee na benn bis dañu ko kam tusabbixu fi kulli yawmin mu ni miatu alfin illa an tuxti al asaabiu mu ni téeméeri junni yoon dinaa ko sàbbal yàlla par bis bu fekkee sama baaraam yu juumut su may wàññi téeméeri junni yoon danaa ko sàbbal par bis jotawut ak la muy xalaat jotawut ak la muy jàng alquran jot kii di xanaa dundab jëpp da koo jaamu yàlla nee na laa yafqahu rajulu kulla alfiqhi xatta yamquta annaasa fi jambillah thumma yarjicu ila nafsihi fa yakunu laha ashadda maqta nee na nit ki koo dégg ñu ne la faqih la te melul nii may bëgg a wax mu ni xamal di faqih te kuñ naan faqih dëgg la mooy koo xam ni day bañ nit ñi te yàlla tax mu bañ leen maanaam bañ koo xam ne li muy def gënu nga bañ ko waaye gis nga boo bañee nit ñi ba noppi nag da ngay wëlbati ko jàkkaarloog sa bopp mu ni li nga bañ nit ñi da nga koy duble nga bañ ko sa bopp ndax yaa gën a sàggal ñëpp su boobaa est-ce que ñun loolu la ñuy def déedéet diw ñu ma ko contrer ah diw jëfam bi mu def diw nangam waaye yow ñi ma contrer sama bopp ndax li ma def démb moom doo ko dégg mukk kon doomu aadama toujours dafa war a def li nit di autocritique joxañ sa bopp man sama nangam sama jëfi démb yi sama kii karam yi di yedd sa bopp waaye déedéet dafa mel ni daal baaraamam joxañ mu jëm sa biti moom lañ gën a sawar ci baaraamam joxañ mu jëm ci biir foofu am njàng mu rëy magam bokk na ci kéemaani sunu borom yi ci waxam ya mooy mu ni adraktu naasan waraqan la sawka fiihi fa asbaxuu sawkan la waraqa fiihi in ta in naqadtahum naqaduuka wa in taraktahum la yatrukuuka nee na man dama yàlla damaa baaxee ma fekkee jamono joo xam ni nit ñi ay xobi garab lañ woon amuñ benn dégg xoolal xoolal xoolal seen wax yi ñu xóotee mu ni damaa tombeeg jamono joo xam ni nit ñi ay xobi garab yi kese lañ woon amuñu woon ay dégg ma demaat ba mu yàgg gis nit ñoo xam ne ay dégg kese lañ amuñ benn xob loolu mooy lan mooy li ñu njëkk ne dañoo baaxoon di jëfe di jàng di jàngale di yaru di yare jub tey jubbal si waaye nit yi léegi mu ni sawkan laa war a xafihi ay dégg kese la koo ci jonjol rek mu jam la ci déggam bi kooku de xam naa bu ñëwoon ci jamono jii mbaa mu ni këpp ngir Dakar moom yaakaar naa ni du fi def lu mat vingt quatre heures daal di génnaat dem xatta wala na ci ñi askanoo sax sunna nag laa wax benn waay ni ko waaw kon nu ñuy def mu ni ko soo bëggee noppalu sa der bi da nga koy lebal nit ñi ñu cay mat di lekk bu ko defee boo ëllëgee ñu fay la yow nga jàll bàyyi leen foofu ñu di jël seen coowal bopp allahu akbar maanaam nekk bi di fayantoo diw mooma maa ko yaama man man la mu ni déedéet bàyyi leen ak der bi rek lu leen neex nañ ci teg yow moom lebal leen sam der boo ëllëgee àllaaxira mu ne nga fayee ko ko jàll bàyyi leen foofa ñoom ak seen coow li bokk na ci yim doon wax benn waaye dafa ñëw benn bis ni ko aw sa nii dénk ma mu ni ko udkiri llaha fi sarra yadkuruka fi darra del fàttaliku sa boroom ci jamonoy kiis ak muy metti sa borom yàlla fàttaliku la ah ci jamonoy metti muy wa ida dakarta almawta fajal nafsaka ka ahadihim saa boo fàttalikoo néewee rek jàppal ne yaa ngi tëdd ci bi seen biir ñun moom dañ naan ay diw dem si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm yow moom doo bëgg a dégg yàlla na ko yàlla yërëm déedéet léeg da nga jàpp ne yow ca néew ya nga bokk su fekkoon tey dalaa fekk nga tëdd foofu nooy mel nee na wa ida asrafta nafsaka ala sayin min addunya fandur ila ma yasiru ilay saa boo tëralitee benn projet nar caa soobu ci mbirum àddina rek mu ne bala ngaa seq benn jéego calculal fan la nar a mujj ba pare allahu akbar mbokk yi lii buñ ko doon def njaaxum yu bari yu ñuy dugg duñ ko dugg de saa boo naree benn mbir rek mu ni balaa ngay seq benn jéego rek xoolal fu mu nar a mujj après affaire boobu bu teeroon ah damay imaginer rek ni fan la war a mën a teeree su baaxoon rek mu ni bàyyi benn bis abu darda dafa bindoon maslamata ibni muxlis ni ko salaamun alayk amma baad fa inna al abda ida amila bi maasiyati illahi abgadahu allah fa ida abgadahu allah bagadahu ila ibadi mu ne muhammad ibni maslama te li ma seetlu mbokk yi mooy gis nga salafu saalix ñun seeni lettre daanaka lettre yu gàtt la doon yu gàtt gàtt gàtt gàtt lettre yu gàtt waaye boo xoolee gàttaay ba lan nar a ëmb mooy seeni wax dafa war a mën a façon te bari njëriñ loolu dinaa koy joxe misaal ci booy liiral ña daan jàngale bu njëkk ak ñu tey bi da ngay gis téere yu njëkk yi ay kaddu yu gàtt yoo xam ne la ca ne ci ay xikam ak ay ibaram allahu bihi alayhi léegi pour nga wax benn baat da ngay expliquer expliquer affaire boo xam ne nit ki sax mën naa réer fa moo tax xikma genn wàll ba mi ngi nekk ci wax lu gàtt nit ki mën koo man mën koo jàpp mu ni Muhammad ibn Maslama maa ngi lay yëgal ni ginnaaw bu ma la nuyoo ci sama leetar bii yëgal ni nit ki saabu defek mooy yàlla sunu borom dana ko jëppi te su ko jëppee njëppaange googu da koy roob ci xolu jaam bi da ngay xëy rek gis nit ñi jëppi la te doo xam lu xew allahu akbar est-ce que est-ce que nattukaay boobu ñun ñu ngi koy yàq saa boo defee bàkkaar sa borom da lay jéppi te bu la sa borom jéppee njëppaange googu dafay roob ci xolu jaam yi da ngay xëy rek ñu jéppi la doo xam lu tax ñu jéppi la abu waayil nee na abu darda nee na man sax nag léeg-léeg dinaa leen waar wax leen loo xam ne jëfeegu ma ko waaye nag ay mbir laa ciy sàkk lii nag ñëw na ci ñaari riwaaya benn riwaaya bi ni maa ngi sàkku yàlla fay ma ci tiyaaba ndax bu ngeen jariñoo rek ma jëf beneen bi dani maa ngi xalaat nag ba ma waar leen ba noppi wax leen nangam ñibbi sama kër bu ko defee nag aaya ji ñëw naa ma atamuruna annaasa bil birri wa tansawna anfusakum ah yow abu darda léegi da ngay dem digal nit ñi baax doo ko def afala taaxiloon kon xanaa dof nga mu ne man du ma nangoo nekk dof mu ne su ma ko jëfeegul woon fàttali nga dara tax ma jëfee ko tey nag moom xajjit wala xaraj abu darda mu ni maa li ara ulamaukum yadhabuun wa juhaalukum la yataallamuun taallamu fa inna alaalima walmutaallima sharikaani fi lajr abu darda mu ni waaw li ma jaaxal mooy lan moo tax seen borom xam-xam yi ñoom ñi ngi faatu rek ci seen innocent yi ba léegi kenn jugut dem jàngi gis nga léeg-léeg salafu saalih bu ñuy wax da nga yaakaar ne dañoo fekke woon suñu jamono bi sax fas na maa ngi ara ulamaukum yazhabun man de li ma jaaxal mooy damaa gis borom xam-xam yaa ngi faatu yi dem rek wa juhalukum nit ñi ci des laa yataallamuna nangu ñoo xam seen diine mu ngi taallamu jug leen ngeen jàngi fa inna al aalima borom xam-xam beeg lañ ko dig ci aw yiw wal mutaallim ak kii sàkku xam-xam yëgal ni sharikaani fil ajr bu yiw ñëwee ñoo koy bokk kenn ku ci nekk sa wàll rek ngay wanaam abu darda mu ne lan takuna aaliman xatta takuna mutaalliman mu ne yëgal ni doo nekk ku xam mukk mënoo jaar fenn ba xam lu dul da ngaa nekk ku jàng loolu nag xanaa gaa yi wax diw dañ koo solak xaw ma sol xaw ma sotti yooyu yëpp dara wérul li wér rek mooy jàng wa lan takuna aaliman doo nekk borom xam-xam mukk ko xatta tataallama méta da ngaa jàngi mu ne walan takuna mutaalliman xatta takuna bima amilta aaliman saa boo demee di jàngi yëgal ni tuddóob jàng kat fiig li ngay jàng jëfe woo ko loolu Sufyaan Sawri yaa nga doon ko wax Sufyaan moo yaa ngi jëfe li ngay jàng Sufyaan jàngi nga tey mu ne waaw lu ngeen jàng mu ne mi ngi nii mbaa yaa ngi defee li nga jàng mu ni fekk xam nga foofu moom neexu la toon fekk mu ni ko yëgal ni saa boo jàngee bind te jëfewoo ko halkane lay kàttab bi ci sa kaw waaye du la jural njëriñ jàpp naa ne yaay ju mel nii ku ku ko amoon même boo boo amuloon envie nekk borom xam-xam sax war nga ko mën a nekk mais doo nekk borom xam jàngkat mukk lu dul fi yëg la ngay jàng yaa ngi koy jëfee boo gisee ñun tey sunu njàng mi amul baraka loolu la xadis bu ñu wax nga ni ma nga ci Buxaari ma nga ci Muslim déggoon naa ko dégg naa ko ci kasa tàngam di wax na ko ci conférence ba après zéro dara du ko am parce que lu tax jëfe da cee topp maanaam nit ki na yëg ni li muy xam te jëfewu ko loolu wabaal lay doon ci moom même lu gàtt gàtt nit ki na jéem comme ni koy Ibnul Qayyim di waxee nuru nuru lu jéem jéem lu te ngeen xam ne ku jéemut dooman ndax xam ngeen ni gaal gi daw ci fudul ndox ma nee na inna aqwafa ma axaafu ida waqiftu lilxisaabi an yuqaalu an yuqaala li ma amilta fi ma alimta nee na man Abu Darda li ma gën a tiital buñ ma taxawalee àllaaxira ñu ne ma waaw li nga jot a xam moom loo ci jëfe Abu Darda mu ne waylun lilladi laa yaalamu marratan wa waylun lilladi yaalamu wala yaamalu sab'a marrat nee na yal na alku waa jii nga xamante daa lànk ah bañ a jàng diine waaye yal na alku juróom-ñaari yoon kii nga xam ne jàng na diine ba nag waaye jëfewu ko allahu akbar mu ni man day ah saa bu ma gisee ab néew te loolu dañ ko koy nitil saa bu seenet néew dana uxdu fa inna raixuun wa ruuxu fa inna gaaduun mawcidatun baliira wa gaflatun sariica kafaa bilmawti waacidan yadhabu alawal walaaxiru laa yactabir allahu akbar saa bu ko néew masaana romb dafay wax ni dem leen yéen a ngi doon di gont bu subaa rek ñu fekk si leen nee na bu dee suba la danaan dem leen yéen ñëw yi yéen a ngi doon di xëy ñu ngi topp seen ginnaaw fekk si leen mu ne waaraate gu jot ak lii tàggante gu rëy gi suñ kaw doy nag waar ah ki nga nekkal añ ak moom reer ak moom ba pare gas ko suul continuer ci say caaxaan mu ne loolu kenn xamut lu mu doon bokk na ci li mu doon wax allahuma inni audu bika min tafriqati alqalb قيل وما تفرقة القلب قال أن يوضع في كل واد مال الله أكبر lii day atañu koo saxla nit ñi tey mu ne yàlla maa ngi muslu ci yow ci xol bu jaxasoo fu ne mu teg fa fu mu teg fa bët xol xol bu jaxasoo xol boo xam ne fu nekk teg na fa bët ñu ne ko waaw xol bu jaxasoo ba teqalikoo fu ne mu teg fa bët mooy lan mu ne mooy waajoo xamante ni fu nekk dugal na fa loxoom ngir am ca dara usine nangam actionnaire laa fa fii nangam maa ngi koy liggéeyee fii nangam am naa fa nangam nangam nangam fu nekk rek xam ngeen doomu aadama fi mu denc yëppam ak fa muy amee suut xol bi du ba tubbe ba ci biir julli ci fa nga denc suut fa nga denc as suut ak fa ngay amee suut seytaan du la bàyyi sa xol bi fa jógee maanaam xol bu jaxasoo xoolal tey mbokk yi nun nun waa àddina ni ñuy wutee àddina fu ne rek koo yaakaar ni boo fa roofee loxo rek man fa am dara rek nga roofa loxo loo yaakaar ni boo ko defee mu réussir rek nga def ko loolu ñun ñëpp la daal fi mu nekk nii bu ko defee sa xel bi nag tey mi ngi fii suba ma nga fee ginnaaw suba ma nga fee tranquillité bi war a am jullit bi war a am ak dal sa kii na pour mën a jaamu suñu borom doo ko mën a moo tax mu ni yow suñu borom maa ngi muslu ci yow ci xol bu te xali koo jaxasoo fu ne mu am fekk gëpp loolu mooy lan mu ni mooy an yudaa fi kulli waadin maal pour wu nekk rek nga am fas fuut soo xamante ni yaa ngi koy saytu di ko bàyyi xel abi darda nee na istaidu billahi min xusuui nifaq qila wa ma xusuu nifaq qala an yura aljasadu xaashian walqalbu laysa bi xaashian mu ne yàlla maa ngi muslu ci yow ci toroxlug naafiq ñu ni ko waaw luy toroxlug naafiq mu ni xanaa waajoo xam ne soo ko séenee jëmm ci xëyee yow da ngay bëgg a mel ni moom fekk na li muy wane ci biti ak la muy fekk ci biir bokkul jëmm jaa toroxlu waaye xol ba toroxlu yàlla subhanahu wa taala nee na ñetti mbir a ngi nii su dul woon ak moom malaaka yi mën na maa jël ma dee jóg ñu ni ko lan mu ni xanaa naaj bu tàng jër ma yendoo woor tey seen fay ga ëllëg ak lan guddi gi lan dem këruus may su jot tey seen fay ga ëllëg ak lan mu ni xanaa fekk gaa yoo xam ni wér na ma ni ku dugg ci seen biir di nga fa dégg mbaa nga xam fa loo xam ne di nga ko jëriñoo ci sa wàllu diine kama yuntaqa atayibu tamar comme ni nga xam ne nit ki mën na koo fekkee garab gu meññi mu daal di say lekk kon yii mbokk yi ku mel ni imam ibn jawzi indi na ci yu bare bare bare ci sifatu safwa bokk na ci doon na wax ni utlubul ilma jug leen ngeen sàkku ci xam-xam mu ni fa in ajaztum su ngeen ko tëlee ba tëli ko mu ni fa ahibbu ahlahu bëgg leen leen xam-xam fa in lam tuhibbuhum bu ngeen leen mënta bëgg fala tubghiduhum bu leen leen bañ ndax kon da ngeen di alku ngeen bàyyi leen seen yëf bokk na ci lim doon wax moom Abu Darda mooy da doon wax ni li ma gën a tiit ci sama gan ëllëg mooy ñu wax ma àllaaxira waaw li nga xam lan nga ci jot a jëfe nee na amul benn aaya kon bu mën a romb buy tëkk lu dul danañ ma laaj ndax tëkku ga waa waaroon na la war a déet waaye amul benn aaya buy digle ab farata lu dul danañu laaj ndax jëfe naa ko wala déet kon nag yàlla maa ngi muslu ci yow ci xam-xam bu dul jariñ waaye maa ngi muslu ci yow ci bakkan boo xam du doyal waaye maa ngi muslu ci yow ci ñaan boo xam ne sunu borom du ko wuyu benn bis umu darda ndeysaan dafa ne ci néeg bi bale néeg bi defar bay teeltu borom këram abu darda ñëw xol baa ngi jeex kanam gaa ngi ñëkk ndaw si teertu ko ni ko lu xew mu ne teg xol baa ngi jeex ba mën ta wax allahu akbar mbokk yi xool leen li ko merloo xam ngeen lan moo ko merloo nee na maa aarifu fihim shay'an min amri muhammadin illa annahum yusalluuna jamaatan daa génn ci dëkk bi ñibis mer ba mën ta wax soxna si ni ko lan la mi ngi mer ba log-logal làmmiñ bi mën ta wax lan la lu xew maa jàmm mu ni ko fi mu ne nii xàmmeetuma dara loo xam ni saxaaba yaa ngi ko doon def nit ñi di ko def lu dul gis naa ne ña ngay dem ci jàkkalee julli mbooloo subhaana rabbina al aala xoolal ci jamono ji sell jooju nga xam ni ponkali saxaaba yëpp ñu ngay dund saxaaba yaa ngay dund taabiun yaa ngay dund borom xam-xam yaa nga fa waaye moom nee na dem na ba yu loolu nag daanaka lil mubaalaxa la rek léeg-léeg nit ki day dem ba soppeeku yi day bari ba nga defee ne dafa wax ne lépp ko soppeeku fekk déedéet la mu bëgg a wax mooy la soppeeku daa bari muy dem naa ba xàmmeetuma dara ci li nit ñi nekk ak la yonent bi nekkoon lu dul seen naa leen ña nga dem ci jàkkalee julli ci kooku jàpp nag bu ñëwoon fii dana am lu ko metti trop benn bis benn waaye dafa dugg ci biir këram fekk ko muy for ay pepp dugg ko ci pelle ci mburu mu ni ko waaw yow lii ban njëriñ la la amal mu ne inna min fiqhu rajul rifquhu fi maishi maishati dafa bokk ci fiq fiqat nit ki mooy mu organiser ni muy dundee ba du yàq ay feppi mburu la doon for kooku bu ñëwoon fekk ñi nga xamante ni ñoom daanaka yekkat lëmm la ñuy këpp ci ay gubeel nag kooku lan lay wax bokk na ci li mu doon wax moom Abu Darda waaraate goo xam daf ko doon waar di ko yónnee mbokka ma ne Salmaan mu ni ko Salmaan Salmaan maa yow ñu ngi jëm mag de Salmaan suñ wér gi nañ ci profitoo jaamu ci yàlla balaa wér di yegsi ndax kat war nanoo góorgóorlu ba moytandiku ñaan ak ku ñu tooñ ku ñu tooñ kat ak ñaanal waxtu vitesse yi muy daw par guddi ku ñu tooñ ak jirim nee na vitesse yi muy daw par guddi kenn xamul lu mu toll nan góorgóorlu taxoo jàkk ndax kat dégg naa yonent bi ni jàkk kat dëkkuwaay la ñeel képp ku ragal yàlla te jàkkat dafay ëmb yërmande ak njéggalal suñu borom salman nan fexe ba bépp jirim bu ñu xam nan ko jegele suñu bopp jàppale ko di ko dimbali ndax kat dégg naa yonente bi sallallahu alayhi wasallam benn waaye ni ko sama xol bi dafa wow man ko bon xol laa mu ne ko soo bëggee sa xol bi baax da ngay raay jirim bopp jirim nga daal di koy leel ca la ngay lekk may ko ca mu ne ko ngal la waay nañ fexe ba lépp loo xam ni bu ñu ko yàlla wërsëgalee duñ ko mën a sant dañ ko war a santee buñ soxla alal ju mel noonu ndax yonent bi nee na benn waaye dinañ ko indi yowmal qiyaama su ko defee sunu borom bu ko laajee ndax sant na ko ca lam ko joxoon ci ay xéewal fekk am na lum ca manqueel rek loolu ay musiba la koy jural mu ne ko nag dégg naa nag dem nga ba léegi jamono soppeeku na nag nga naan da ngay wut nag ay mbindaan yu lay liggéeyal baax na day tëj leetar ba jox mi daan mu ne liggéey mbokk yi dara nañu si di bu fekkee aajowoo nga ko waaye lii danay wan ñoom ñu fi ñu àggoon ci dogu ak zuhdu muy dëddu àddina ak mooy tandiku lépp loo xam ne même dagan na ci ñoom xam nga Ahmad ibn Hanbal dana ko ju am solo Ahmad boo nee dagan na dagan doom ji daal Abdallah dana ko bàyyi yow luñ wax ñu ni bàyyi loolu bëgguma loolu noonu la yaa waxoon dagan na benn bis mu ne ko du lépp luñ ñu la dagan na rek da nga koy jël loolu ci xuusee la bokk allahu akbar mu ni ko dafa bokk ci xuuse sa diggante sa borom luñ ne la dagana rek ah ah ah nu mu tuddati xuus ci almubaaxaat wala maaw tarbiya ñiy wax ci wàllu yar dañuy wax ni bokk na ci li gën a mën a yàqal doomu aadama te seytaane di ko fa jaare mooy alxawdu fi lmubaaxaat mooy di xuus ci ñu dagan yi dagan na rek nga jël dagan na rek nga jël lu dagan da nga ne ay ca na ñëw mu ne su yàggee mën ngaa tarxiisee ci buntu boobu bokk na ci kàddu yi nga xamante ni doon nañ ko toxal jëlee ko ci abu darda radiallahu anhu wa arda mu ni fekk daf doon yedd am mbokkam julitam mu ni képp koo xamante ni ñàkk nga sa mbokkam julit nee na bul ko xas bul ko yedd nee na la war mooy demal nga seeti ko xool lu ko téye su fekkee da ngaa yëg ni kat li ko téye ngant la allahu akbar mbokk yi xoolal gii jëflante ni mu rafetee da nga am sa mbokkum bi nga toog ba mu yàgg gisatoo ko wala nga dégg njombe ci moom nee na bul ko yedd déedéet nee na bul ko wax dara demal nga seeti ba nga xam lan moo ko téye nee na su fekkente ni ab njuumte la moo ko dal nga fàttali ko bàyyi su fekkente ni mbir mu lëntoon ci yow la mu leeral la su fekkee daa nekk ci njubadi mu ne même bu nekkee ci njubadi bu ko bàyyi bu dee xarit la bu ko bàyyi mu ne lu tax mu ne bu dee yàlla namm na ci yow yiw dee dana ñëw jëlee ko fi su ko defee yow da nga nekk jokk mbokk est-ce que ñun noonu la ñuy def déedéet ñun moom daanaka rek la yàlla xam doy na ñi nga jàpp ni tey bu fekkoonte ni musiba am na ñoo la war a défendre mooy li ma doon wax barki démb ci sama bayaan bi ñooñu ñoo lay waxal ay wax te mbokk yi loolu loolu du baaxalu ànd kenn ku ci nekk am nga ay yëf yëfaan yoo xamante ni bëggu ko ko tudd waaye borom bi subhanahu wa taala tax muy nañuy suturaalantee man satara musliman satarahu llah ku suturaal sa mbokkum jur suñu borom suturaal la jubluwaay ba mooy doomu aadama ci boppam dafa bari ay xawee ko xawee ko sutura yu ko wër nee na nit ñi kat bokk na ci lim doon wax nee na nit ñi moom boo leen critiqué ñu critiqué la soo leen bàyyee du tax ñu bàyyi la boo dawee di làqatu ñu fekk la fa nga nekk léegi ni ngay def mooy góor góorlul ba lépp lu la waay wax bu dee waxas la bul fayyu bu la tooñee baal ko mu ne yàlla dana la remplacer lu ko gën bokk na ca lam doon wax nee na ab julit yëkkatiwul sarax bu gën a foor ab julit yëkkatiwul sarax bu gën a foor jàkkaarloog ay mbokk julitam waar leen waar goo xam ni ban jugee doonte benn nit jëriñu na ci mu ne sarxe woo sarxe bu ko gën a rëy allahu akbar bokk na ca lam doon wax nee na waylu li kulli jammaain faaxirin faahu kaannahu majnunun yara ma inda annaasi wala yara ma inda allah law yastatiu la wasala allayla binnahaar wayluhu min xisaabin galidin wa cadaabin shadid nee na halkane ñeel na waa joo xam ni foo ko fekk mi ngi dajale di dajale am naa lii am naa lii am naa lii mbir àddina di dajale rek foo ko fekk ab dof nga koy teg ndax moom day jàpp ni li ne ci loxol nit ñi loolu mooy koom-koom waaye fàtte na la nekk ci loxol suñu borom foo ko fekk ab dof nga koy teg ndax bu sañoon guddi géeg bëccëg gi dañuy kole wante maanaam bëccëg gi day continuer rek guddi dootul amati ndax mu continuer activité yi nee na kooku de taskare ñeel na ko ci bis buñ koy xisaab ndax lu rëy rëy rëy mi ngi koy xaar bokk na ci yem doon wax nee na képp ku yeewu say bànneex day taxaw ah say jëf taxaw nee na saa boo góorgóorloo ba say bànneex boo sa ginnaaw yi jëf-jëf yëgal ni bis bu nar a baax ngay am waaye bisu yi bu sa jëfee bu say bànneex bootee say jëf ah au lieu que jëf ji boote waaye ñu boot ko mu ne xamal ni bis boobu moom xaw ma foo koy waxee waaye bis boo nar a toskare lay doon bokk na ci yem doon wax mu ne yooyu yow doomu aadam booy dox ci kaw suuf si tey ngaa def ndànk teggi sa tànk bi teg ndànk ndax ay fan yu néew nga fiy am fi nga doon joggi mooy nekk sa bàmmeel xamal ni àddina ay bis la nee na bis bu dem rek dagg na benn cër ci sa cër yi allahu akbar noonu kadalika hakada de bis bu dem rek am na lu mu yóbbu sa cër yi mi ngi mel ni bu doon ab semaine la ñu ne am na cër bu mu wàññi weer la ñu ni wàññi na ay cër at la ñu ni wàññi na ay cëri cëri cër jàpp naa ne kon saa boo xëyee yow dee ngay gën a jege ka li nga xam moom mooy dund moo tax li mel ni mbokk doon wax ay jamono mu ni buñ la laajee ñaata at nga am nga ni fanweeri at la am wala fanweeri at ak juróom déedéet loolu amoo ko di amatoo ko amoo ko di yow déewoo ko fi ne nii di dañ laa waroon wax ñaata at nga ñàkk nga ni fi ne ñàkk naa fanweeri at ak juróom maanaam li nga dund yow ñàkk nga ko di amoo ko di yow bu ñu la ñaata at nga am naa fan déedéet li nga am mooy li des ci kanam maanaam su fekkoon dañ laa wax ni fanweeri at ak juróom des na ci kanam sañ ngaa wax ni am naa fanweeri at ak juróom mooy yi nga war a dund kon ñaata at nga am olof da koy wax waaye daa war na wax ñaata at nga ñàkk nga ne ko ñàkk naa fanweeri at ak juróom bu ko defee yow li nga am moom xamoo ko amaana lu gàtt la bis bi nga xamante ni jullit ñi dañoo gañe woon ubbi xubrus ndeysaan jullit ñi kontaan di daw di lungoonte kenn ku nekk teg sa morom sa mbagg sa lepp kontaan di takbir abu darda dafa dem ba ci benn ruq mu jonkan di jooy kenn ci saxaaba yi fekk ko fa ne ko waaw suuf nag moom saa bu ñu nekkee ci mbégte rek sa affaire yi moo koy yàq xoolal tawfiq ji ni suñu borom defal tey ñu gañe yéefar yi dugg ci dëkk boo xam ne kenn mës ta toog ñu nodd fa xool léegi lañ nodd nii di julli mu ne ko man fi may xoolee ak fi ngay xoolee daa bokkut fi may xoolee ak fi ngay xoolee moo bokkut xanaa xamoo ni xéewale ngii goo xam ne aw nit a ko moomoon li tax nga jot ci mooy dañoo lànkoon leen suñu borom sant kan moo la garantie ne yow boo ci joxee di nga góorgóorlu ci la la son borom sant mu ne boo ci góorgóorlu mu defal ñu def gaa yi kon kon kon déggin bu xóot boobu nga xam daanaka yow xaw tuuti kon kenn ca mbooloo ma du xalaatee nu mel noonu laa sakkali bi sa bisu mbégte la amul werante waaye xoolal ñoom seen déggin ni mu xóotee woon ak seen dëddu àddina ak seen ngëm fam tolloon bokk na ci yam doon wax nee na amul benn waay boo xamante nii gis nga ko lu dul sa xel ma ak lewet da caa nekk waaye ak yokk da cay am ak wàññeeku da cay am nee na doomu aadama ida atatu dunia bi ziyadatin fi maalin dalla farixan masrura nee na nit ki daal saa bu jékki-jékki yoon yàgg am benn tuusma alal dikkal ko mbaa mun am ay bien yu doon lijjanti mu sotti mbaa benn marché mu daal di koy gañe mu ni nga gis mu kontaan di tëbakat ak di bég mu ne wallaylu wannahaaru daa'ibaani fi ritmi amri laa yaxzunuhu dalik mu ni waaw yow guddi mi ngi ñëw bëccëg di ñëw te bu ñëw rek balaa dem rek fàq sa dund gi dara yóbbu wàññi mu ni waaw yow dalla dalaalu maa yanfau maalun yaziidu wa umrun yanqus alal juy doollee ko fan wuy wàññeeku mu ni foofu diggante boobu kontaan xaju fi allahu akbar alal juy doollee ko waaye fan waa ngay wàññeeku bokk na ca lam doon wax nee na abi xilaaba nee na benn bis dañoo romb benn waay bu def bàkkaar mu ni gars yi di ko xas ah xoolal xoolal lii rek moom mel ni ah saggat comme mooy comme ñun ni ñuy def rek diw yëngal li mu def commencé di wax di ko xas mu ñu leen araaytum law wajadtumuuhu fi qalibin alam takunu mustaxriji awa yéen du ngeen fekkoon seen waa ji mu daanu ci kàmb yéen du ngeen ko génnee qaalu bala ñu ne ahankay mu ne afala tasub fala tasubbu axaakum bu leen ko xas kon waxmadu llah azza wa jalla alladi aafaakum da ngeen di sant yàlla bi leen musal ndax kàmb gii mu tàbbi tey yéen mënoon ngeen fee tàbbi gaa yi ni ko abala tubghidu kii xanaa xamoo lu bon li mu def doo ko bañ mu ne innama ubghidu amalahu fa in tarakahu fa uaxi fillah lim def laay bañ waaye du moom laay bañ te ñun mbokk yi duñ bañ jëfi nit ki déedéet nit ki la ñuy bañ am na benn aaya bu nekk ci suuratu xujuraat aaya joo xam ni saa bu ma ci yegsee dinaa wax mbokk yi gis nga aaya bii buñ dajaloon mille personnes ñi koy réussir ci julli ñi duñ mat trois maa la ko wax parce que nit nit da cay feeñ wa in taifatan min al muminina iqtatalu ñaari kuréel ci julli ñi bu ñu xeexee lu mu wax fa aslihu baynahuma demal nga yéwénal seen diggante fa in bagat ihdahuma ala al uxra bu kenn ka fettirloo di dof doflu fa qaatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah léegi su boobaa sañ ngaa sob sañ ngaa far ka nga di toogal bi ngay àttee nga ni diw toogal mu toog diw nga ni ko toogal muy xataraay nan toogu ba mu ni ànd nag ki toog ngeen sob ki toogu dëkk ndiggam ba mu toog waaye fa in faat su nangoo toog nag fa aslixu baynahuma bil adl boo yéwénal maadul wa aqsitu maanu gën a fees nag foofu maanu dafaa jafe mbokk yi ndax saa boo nee diw toogal mu toog diw nga ne ko toogal toogu rek sa xol jub na di commencé fudd su fuddee balaa muy wàccaat diggante boobu maandu fa dafa jafe lool xaw ma li ma wax xam ngeen ko wala déet gis nga aaya jooju buñ ci nattoon junni nit ñetti nit ñooy réussir ndax doomu aadama jamono jooju commencé taa daar daar rek een commencé naa jub een bee waral nga far een bee waral nga sot een bee waral nga koy fajal su dee ba mu yàgg mu ni toog naa nga war a arrangé rek dafa mel ni ci sa biir wax sax ah da ngaa dëgër bopp boo xam naa ne nga ah fi ne loolu rek moo lay wan yëf yi des na ba léegi maadaama moom nangu naa toog wàcc na rek da nga war a fàttali passé lépp ah yi lépp yaa ko fi indi boo ko defal nan dañu agsi fi commencé di wax ay wax ba daanaka wax ji gën a yokk moo lay wan ne yow sa xol ba léegi mu ngi sot te normalement sot nga daa war a am fu muy yem loolu mooy sa mbokkum julli bu defee njuumte bul ko bañ moom waaye bañal njuumte ba mu def bu ko defee bu dellu si waatee rek da nga mën a dellu si yooyu wala alli fi nihaaya abu Darda doon na wax ni niama saw- sawmaatul muslim baytuhu yakuffu lisaana wa farja nee na jaamukaay yàlla bu baax laa gis ñu ne ko ban mu ni sa biir kër lu tax mu ni yakuffu lisaana da ngay téye sa làmmiñ ba doo wax loo war ta wax wa farja da ngay téye sa fay ba doo njaala doo caaxaan wa basara say gët doo xool loo war ta xool mu ne wa iyaakum wa majalisul aswaaq moytandiku leen place yi marché yi place publique yi mu ne fa innaha tulhi wa tu wa tulhi da lay ëppalloo waaye da lay sàgganloo gis nga yu mel nii mbokk yi boo ko toppoon da ngay fekk ahlu siyar wax nañ ci yu bare bare bare yoo xam ne benn boo ci jël rek am njàng da cay nekk ngir nga xam ne abu darda xakim dëgg la woon waaye ñaareel mooy gis nga wax yu mel nii salaf salafu saalix duñ sukkandiku ba ak defaru am jàpp naa ne loolu sax mooy bi bi gën a am ci jàng dund kenn ci saxaaba ya ndax njàngale ya ca nekk ñu mën ko di jëfe ñu ngi ñaan borom bi soo mu defal ñu tawfiq insha allah ñu ngi taxaw foofu ba bind bii di ñëw ñu yeggale dund abu darda hada wal ilmu inda allahi taala wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain